yee asalaamaaleykum sama gars yi temps amul ah moo tax euh, dañ koy taf-tafee rek parce que temps amul quoi après ku ñëw rek daj ci vidéo mën nga ko seetaan quoi yee euh, maa ngi ziar ah di ndamoo di tiitaro euh, di wax encore di woo justice bi ñu libere immédiatement et plus rapidement possible le jeune combattant patriote Alassane Fall ñu libérer ko nu mu gën a gaawee moom Alassane Fall loolu la peuple di réclamer loolu la euh, le peuple souverain di réclamer loolu la bépp patriote di réclamer ñu libérer immédiatement est sans condition le jeune Alassane Fall voilà nañ ko libéré nañ ko libéré sinon du neex ci ñoom nañ ko libéré parce que moomuñu nit yi duñu yàlla du duñu yenentu nañ ko libéré voilà loolu la ñuy wax te di woo gars yi nga xam ne dañuy dagg samay vidéo ñuy propagé liggéey bi liggéey bu am solo bàyyi di accentuer ci man man je ne suis pas important je ne pas important damay je pour les autres damay combattre pour ñeneen ñi damay jaayante pour ñeneen ñi man awma problème benn benn benn awma ko du justice du peuple du dara je suis combattant di xeexal doomu aadama yi donc boo leen dagg samay vidéo bu leen accentuer wu ci man c'est pas important c'est pas important je veux que man xeex bi may xeex c'est pour les autres donc dina ma neex ngeen dagg vidéo yi ci ñu may xeexalee ñeneen ñi ngeen ngeen bañ a focaliser wu ci man yéen a may dégg man ama problème ak justice bu ma waree dugg Sénégal dinaa dugg Sénégal amul dara lu ma xañ Sénégal dara amul doomu aadama buy dox Sénégal bu ma mun a empêcher dugg Sénégal du justice du kenn je suis très assuré et rassuré bu may mujj a dégganteeg les autorités de la république lu ñu ma wax dafa leer naññ ñoom seen bopp ñoo ma ne moo laa tu attends quoi pour revenir amnistie bu leen génn moo ma génne amnistie bu libéré Ousmane songo muy dox ay soxlaam moom fi bàyyi moo ma libéré man amnistie bu libéré kii les faits amnistiés bu libéré ay fay président moom moo ma fi bàyyi amnistie dañ ko amnistié ba mu doon président man dañ ma amnistié li ko toppoon moo ma topp li ko toppoon moo ma topp dañ ko amnistié amnistié ma donc man ama problème boobu amul benn benn plainte buy dox Sénégal bu ma boo xam ne mi ngi sama tur je vous bien ngeen xam ko donc man intéressant wu ma intéressant wu ma dama bëgg ngeen xeexal sénégalais yi dama bugg ngeen taxaw ngir sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoom ñooy combat bi taxaw leen ngir sénégalais yi ngeen jàppale sénégalais ngeen soutenir sénégalais yi nga xam ni ñu ngi subir injustice man subiruma benn injustice benn subiruma ko benn justice newul Sénégal moo mun a arrêté man benn amul amul kenn li ma may ma li ma lu may Juan Branco mu ñëw fa tey kenn jàpp ko loolu moo ma may ma mun a ñëw Sénégal ba mu neex ma te kenn du ma jàpp. Juan Branco huit mois avant bu ñëwoon dañ koy jàpp ndax dañ ko fa jàpp delloo kon munu fa woon dugg kon loolu ko libéré ba mu dugg fa tey moo ma libéré ba ma dugg fa pour muy clair ngeen xamee ko noonu et ça derrière du ma ko xamee noonu la les autorités de la république rassuré ma ko ne ma fii amnistie yow ma laa xam fii yaa fi téye sa bopp amnistie nañ la comme niñ ñu amnistie donc man awma problème boobu te gisuma luy dox Sénégal lu ma mun a arrêté wala loo xam ne mun na ma xañ ñëw wala lu ma xañ non fii maa fi téye sama bopp maa fi téye sama bopp ci samay mbir ci yoo xam ne man la engagé te waxtu bés bu waxtu jóg jotee dinaa jóg comme tout le monde dagg samay billet comme nu ma leen ko waxee parce que c'est bien programmé dugg Amérique dinaa fa def samay tournée ay dëkk yu ma war a dem dinaa ñëw Europe waa France dinañ ma gis waa Allemagne dinaa fa dem dinaa dem Espagne ñoom ñëpp ñu fa nekk jox naa leen rendez-vous maa ngi wax ak ñoom te dina di ma fa gis di ngeen ma gis ci monde bi may wër bu ma jógee foofu dinaa ñëw Sénégal bu ma ñëwee Sénégal ba def fa lu mu fa war a def dinaa dem Afrique dinaa dem Guinée dinaa dem Mali dinaa dem euh, Burkina te di ngeen gis lépp ci internet bi donc man sama programme moom fi téye nu may programmer nan laay ñëwee kañ laay ñëwee fan laay dem fan laay dem tout donc na ngeen ko xamee noonu man aw problème boobu man dama fàtte sama bopp bugguma di wax sama bopp donc bu may def ay vidéo bu leen dagg sama bopp dugal ci moo laa n'est important man li may jooyloo mooy naqaru doomu aadama yii ñu may sëf boo leen xamul lu may daj ci naqar doomu aadama yii liñ may sëf muy metti ci ñoom ñu am ci man yaakaar di ma woo di ma wax seen i peine seen frustration loolu moo ma tere nelaw te loolu moo waral samay live moo waral samay xeex mais man moolaa aw ma benn souci aw ma souci lekk aw ma souci naan aw ma souci fu may fanaan aw ma souci liggéey aw ma benn souci ci àdduna buñ doon wër ñu gën a ñàkk souci bokk naa ci ñu gën a ñàkk souci ci monde bi man benn souci laa am mooy yéen loolu dama bëgg ngeen xam ko benn souci laa am muy yéen voilà waaw may tere lekk yéen a may tere naan yéen a may tere nalaw benn souci laa am pour yéen donc man bu may xeex pour yéen la dama bëgg ngeen di promouvoir coono doomu aadama yi coono sénégalais yi ngeen leen ngeen taxaw buñ leen di xeexal ngeen di partager loolu noonu voilà ngeen di partager loolu loolu laa bëgg ngeen koy partager te bañ a focaliser wu ci man parce que je ne suis pas important devant le peuple sénégalais léegi nag di wax li ma war a wax am na lu may wax ci kaw am na loo xam ne du ma ko wax ci kaw ci suuf laa koy wax waaye daal ñi yor justice bi jot nañ sama kàddu te ñi leen di xaar ñi libéré Alassane Fall mu dox ay soxlaam point voilà bu ci des lu ci des nag comme nu ma leen ko waxee démb def naa ci live wax naa leen nee naa leen fu nekk nii sas aux sorcières commencé gul tàmbaleeguñu gu ñu topp gaay yi na ko xam noonu tàmbaleeguñu gu topp gaay yi li am ni ay problème personnel la lu ay nit porté plainte gars yi di ko lijjanti loolu wax naa leen ko gis ngeen ko Ibrahima Faye magu Marème fay Sall indi na cent cinq millions cash teg ko brigade de la gendarmerie ñu libéré son petit frère Adama Faye ñu bokk ak Marème Faye Sall ndey ak baay xaalis bi nag joxewul lépp deux cent soixante quinze millions la ay terrain yoo xam ni ñu ngi ko jaay jotuñu seen terrain boobu ba léegi ñoom ñoo ko porté woon plainte donc Ibrahima fay moom moo indi xaalis bi jox ko ki nga xam ni ñoo ko fayal Adama fay mais deux cent soixante quinze millions la cent cinq millions la joxegum loolu la joxegum donc ay problème personnel la nangeen ko xam mooy maanaam Sonko porté plaintul Jomaay porté plaintul keneen ak keneen porte plaintul ay nit ñoo porté plainte donc loolu du xeexu gouvernement bi gouvernement bi jógagul ci loolu donc na ngeen ko xamee noonu léegi nag ñun suñu xeex comme ni ñu koy defee wax ji may wax nii pour ñu tëbal fi ñii fi nekkoon la loolu mooy sama xeex ku xamul ku ku ku umpale man sama stratégie de combat da ngay da ngay réer ci samay communication parce que samay communication dafay bëri direction man yoruma communication benn direction samay communication dafa bëri direction am na communication boo xam ne pour ñu nekk ci suuf la am na communication boo xam autorités yi laa koy jox malgré di ngeen ko dégg mais du ko yéen parce que xaaruma ci yéen act boobu parce que xam naa ne yoru leen solution bi ñoom autorités ñoo yor solution bi am na donc maanaam dafa am fu may destinel ñu may destinel samay kàddu man te fu ñu ma koy destinel dinañ ko dégg dinañ ko xam te dinañ xool nan lañ koy doxalee donc xeex bi may xeex nii pour ñu jëlee fi ñi nga xam ni Macky Sall ñoo leen fi tegoon ci justice bi ñu liggéeyal leen saal bulo loolu mooy combat bi ngeen gis ni may def nii parce que dañoo xeex pour libérer la peuple libérer nag dañ koy tàmbali ci justice on peut pas libérer un ñi fi nekkoon di tëj nit yi di fenal nit di sosal nit des fi donc xeex boobu laay xeex man ngeen xamee ko noonu lu ma jóg di wax rek am na objectif lu ma jóg di wax rek am na objectif am na ku may viser am na fu ma ko bëgg wax ji yegg fa am na ku ma bëgg donc am na loo xam ne da ngeen koy dégg mais mun ngeen ko bañ a xam am na loo xam tam xam nañ ko ñimewuñ koo wax am na loo xam ne xam nañ ko mais sañuñu koo wax pour muy leer léegi nag boo déggee samay wax boo ci comprendre rek noppil maa ngi fii xam nga man aw ma problème mu Assane Fall et pourtant yéen a war a gën a mun a xeexal Assane Fall boo leen bëggee tayle Assane Fall man mi nekk kaaw fii mu neex may bëgg lekk ba suur naan ba màndi yor sama xaalis respect ma bro am respect boobu noonu ku ma gis naw ma ku ma gis respecté ma nammuma dara donc na ngeen ko xamee noonu ne man yéen laay xarel yéen billaahi bu ma takkoon samay loxo bu mënat ñoo jox ko juge bi juge bi ñi ma tëj billaahi wallaahi wa taala barke alxuraan bu ma takkoon samay loxo mënat ñëw taxaw ba ci kanamu Abdou Karim ne ko kaay tëj ma mu ne ma génnal bureau bi pour ñu ma xamul man pour ñu ma xamul man je combattant international duma ay ñoom baa jaxate gaay de je combattant international bu xeex ba jëlee fi gaay système bi am doole ci si di ko xeex xare jëlee fi ay ponkal tibb leen buub tuuri ca xaj bu ñu tënkee Ousmane Sonko dugal ci kaso bi tënk Diomaye dugal ci kaso bi dëkk bi tàng jër kenn mënul wax laa la wax maa yanu arme yi jaayanteeg ñoom dóor ba jëlee leen fi donc man bu ma takkoon samay loxo bu mën a sax jox ko Abdou Karim Diop laa lox billaahi di ko jege day daw bu ma ko jegewoon sax day daw ndax xam na ni <laughs> du du du ma ñi ñuy saax saax yow foo foo jëm fan ngeen jëm donc li ñuy wax rek moom mooy li ñu wax moom mooy comme nu ma ko expliqué xeexal gars yi xeexal gaa yi xeexal sénégalais moo moo waree ñibbisi rek dinaa ñibbisi man maa man man munoo ne nit ñibbisil te joxoo ko lekk joxoo ko naan fayaloo ma samay loyer fayaloo ma sama kër vraiment xanaa xanaa xale nga parce que mi ngi mel ni sa baay dem tukki di wut lum la jox loo lekk nga ne ko ñibbisil loolu xanaa xale nga xanaa dangay ngay doog a judd fii kan moo fi ñibbiseegum am nañ lépp Juan Branco bu muy xeex ba léegi tey lay doog a dem Sénégal kan moo fi ñibbiseegum c'est pas parce que dañoo ragal dara de parce que nit yi dañoo am fii seen i seen i teranga am fii seen i liggéey am fii seen i lekk am fii seen naan donc mënuñu tëb noonu dem seen yoon ñi ñu Sonko fal sax laa fii lañ nekkoon ba bu ñu leen di fal ba bu ñuy war a def prêter serment la ñuy doog a dem ba def pré kii ci la ñuy doog a dem donc fii nit mënu fi nekk tëb rek dem ñibbisil fan laay ñibbisi danga maa assuré sama suba danga ma assuré dara Sénégal ah lan nga ma assuré Sénégal moo war a ñibbisi mais rien donc man magum jëmm laa ab kilifa laa nit moo wax ñibbisil balaa nga boo woowee nit tey fekk nga am loo ko jox mais <laughs> yow am yow wóor na ma amoon loo lekk nga naan ñibbisil kan moo ñibbisi kan ngeen gisagum muy xeex fii mu xeex fi ñu gañe kenn ñibbisi kan moo ñibbisee ñibbiseegum nit yi nekk fii di fay seen taxe di fay seen i impôt yor seen i lekk yor seen kër di yor di dundal seen njaboot assuré loolu dara nga ne ko ñibbisil lu muy ñibbisi lu mu fay def heure bu waree ñibbisi na ñibbisi voilà de toute façon lu leen mën a expliquer rek moom mooy xeexal leen sénégalais voilà xeexal leen sénégalais xeexal leen baadoo lay reyante leen pour ñoom Assane Fall free Assane Fall free Assane Fall Free Assane Fall yeah Free Assane Fall Free Assane Fall non xale la nga <laughs> yoru dépense seen c'est sûr yoru seen dépense kër waaw xale la waaw boo na ma du majeur te joxewul dépense seen kër bu yoroon seen kër lëmb di leen jox lekk di leen jox naan di leen jox dépense <laughs> yaakaar naa ne du ñëw rek ñu ne ñibbisil mu yanu mel mettez un chômeur <laughs> mettez un chômeur taxawaalukat boo xam ñibbisi rek mu yanu avion mu dem <laughs> xanaa xanaa bàyyi fi kër bu muy fay xanaa bàyyi fi loyer bu muy fay xanaa yorul ay njabootam gu muy dundal xanaa yarul fi ay mbir yu muy def <laughs> ñibbisil xam xam nga chômage dafa bon nag dafa am ñoo xam dañoo tàmm chômage chômage free ñoo gën oyof sax pitax xëyu ñu gontuñu léegi nag ñooñu dañuy yaay <laughs> ñooñu pour ñoom affaire ñibbisi da ngay war a jóg rek ne ñibbisi rek nga ñibbisi <laughs> xamuñu sax gisoo démb publier naa ko xamuñu sax lan mooy déclaration d'impôt c'est incroyable déclaration d'impôt sax xamuñu ko koo wax mu lay wax impôt Euh, euh, mensuel naa nañ sama kii xamuñu sax impôt déclaration d' <laughs> Sénégal mal est trop profond quoi mais loolu yëpp dara dinañ ko xamit <laughs> euh, poser rek. voilà compte cœur. Euh, xanaa. Euh, compte cœur. parce que allez fekk. allez retour c'est sept dollars. merci sénégalais yi dañoo xeex dañu sonn Assane Fall mii ku xamoon man de dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg démb ak tey li ma famille Assane Fall wax ci Assane Fall ku xamoon Assane Fall li mu daj ngir combat bi ku xamoon Assane Fall chambre bu mu nekkoon ca rëbës ku xamoon luñ ko def rëbës ku xamoon luñ ko toroxalee ku xamoon lu mu dund ku xamoon lu mu daj wallaay la azim laa la wax boo fekkee ñi xeex as ñi ñi ñu am nu ñu bëgg a paqueté Assane Fall di nga taxaw xeex. waaye loolu lépp nag mooy information bi moo jàllul moo comprend trop bien waaye ñun suñu combat ñaar la suñu suñu nguur gii ñu jël dinañ ko organiser te du am benn intri xeex boobu loolu moom ñu on on sera on est porté garant pour nekk les protecteurs de ce projet. protecteur de ce projet man je protège ce projet projet bii duñ ko liggéey ay ay naafeq duñ ko liggéey ay bandi duñ ko liggéey ay raykatu nit duñ ko liggéey ay ay ay déféant projet bii dañ koy protéger projet bi duñ ko xeex ba toll fii am ay infiltré yu ñu ko bëgg a yàqal kon infiltré bépp boo xam ne da nga ñëw bëgg a doon weñ ci biir soow bi dinaa la seppi dinaa la seppi justice bi fi jaral na ma ko taxaw fii di ko xeex ba justice bi jóge fi bii fi nekk nii ba jóge fi ba set wecc buñ gisee beneen intrus intrus bi nga xam ne moo nekk biir intrus bi nga xam ne moom moo nekk euh, fi nga xam ne moom mooy euh, comment dirais-je moom moo nekk euh, université nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi ko fa bàyyi muy yàq yéen xam ngeen ko ba léegi ñi ngi ko fa bàyyi muy yàq conférence Ousmane Sonko bii passé gis ngeen nu mu ñëwee ba gaa yi di ko yuuxoo kooku intrus la kooku dañ ko fa war a jëlee y'a de postes stratégiques yoo xam ne gars yi waruñu leen fa bàyyi dañuy yàq plus ñu fay toog plus ñuy yàq Juan Branco bu mu ñëwee waroon na fa def conférence gis nga nu mu génnee yàq yàq donc ñi ko fa bàyyi ba muy yàq suñu projet ñooñu ñoo ko fa war a jële du ay nit yoo xam ni mun nañ collaborer ak ñoom ay nit la yoo xam ne dañuy yàqal lañ justice bi ña fa nekk dañuy yàqal parce que ñooñu ñun ñu leen Macky so Macky Sall moo leen fal dañuy yàqal wutuñu lan lu neex ñun ñun ñi ko xeex dañuy yàqal recteur de l'université daf ñuy yàqal daf ñuy yàqal tant que mi ngi fay toog mi ngi ñuy yàqal moom moo buggoon introduire ki nga xam ne mooy Ismaïla Madior i IFAN moo buggoon bëggoon introduire Ismaïla Madior Fall IFAN comme chercheur Ismaïla Madior Fall du chercheur c'est un daf ñu yàqal tant que ay nit la yoo xam ne yàq rek la ñuy def plus que ñu leen fay bàyyi plus que ñu ñuy yàqal ñun nag mënuñu xeex benn projet teg ko fii ay intrus di ñu ko yàqal man dina xeex intrus yooyu bañ jóge fi je ménagerai aucun effort pour xeex intrus bañ jóge fi mooy ki nga xam ni moom mooy Abdou Karim mooy ki nga xam ni moom mooy Maham Diallo ki nga xam ni moom mooy Mamadou Seck ki nga xam ni moom mooy Hamadi Diouf ki nga xam ni mooy Ciré Clédor Ba et cetera et cetera dinaa leen xeex bañ jóge fii comme nu ma xeexee seen baay Macky Sall ba mu tëb noonu laay teg accéléré gars yi dóor marquage à la culotte bañ tëb yéen a may dégg recteur de l'université daf ñuy yàqal yàqal kese la ñuy def baaxum ñoo ñëpp dama leen di xeex man nu ma xeexee seen bàyyi laa laa leen di xeexee te damay am ndam man kese damay am ndam ngeen toog damay am ndam ngeen fekk ci ko damay am ndam ngeen jàpp ci damay am ndam man damay am ndam dama leen fiy jëlee bu ma leen waxee takk leen ko téere dama leen fiy jële gars yi dama leen di buub ñoom ñëpp tuur ca ku xam moo laa xam dëgg xam ni man ku ànd ak conviction laa sama bu ma màttee damay dagg dagg dama leen fii jële par la force doole mbaam recteur bi yàq ci yàqal sonko lay jógte yàq kese keroog étudiants yi bu ñu koy yuuxu sonko sax moo ko doon sauvé mi ngi fa ba léegi Juan Branco préparé wu pour ñëw wàcc fa yàqal na ko naan Juan Branco dara du am mi ngi noon Juan Branco dafa mujjee changé yax yàqkat yi nga xam ne ñun dañ leen a xeex dañoo woo président Diomaye ak Ousmane Sonko ñu jëlee leen fii c'est des postes stratégiques Siré Ali Ba na fi jógee c'est des postes stratégiques xeexuñu pour ñoom ñu fi toogaat c'est des postes très stratégiques nañ leen fi jëlee manqué wuñu ay compétence manqué wuñu ay nit pour changer leen manqué wuñu ay nit pour changer nañ leen fi jëlee dëmm yi def sale boulot nañ leen fi jëlee famille yi ñu famille yi ñu rey seen doom sosal leen kontaanuñu famille yi nee nañ saa yu ñu gisee Abdou Karim Diop ci tribunal bi seen xol day dagg ni ngi may laaj nan ma lan moo tax yéen seen waa ji mënu fi jëlee ñii te ci man la ñuy ñëw ku jotul jomaay jotoo Ousmane ko ci man ngay ñëw man damaa sonn man dama sonn laa la dama sonn nekkuma ci nguur gi duma ci ministre duma ci député maa ci gën a tas maa gën a sonn Sénégal kuy jooy ci man ngay ñëw ku bëgg am loo wax son ko ci man ngay ñëw ku bëgg a xam looy wax jomaay ci man ngay ñëw nalawuma lekkuma naanuma ndax njaboot sénégalais dama ne famille victime yi nee nañ te am na lu leen metti torop ci di yeewu di gis Abdou Karim Diop ba léegi tribunal ba mooy ñu sosoloon seen i doom di yeewu di gis ci tribunal bi ki nga xam ni moom mooy Maham Diallo mi sosoloon tiiñal seen i doom jiñ leen ay terroriste di yeewu di gis ki nga xam ni mooy Mamadou Seck ak baaxum ak et cetera ak euh, aar sileba et cetera et cetera famille victime yi nee nañ am am nañ lu leen metti lijjël leen seen cas fajaguñ leen seen naqar ba pare bàyyi fa criminels yi loolu ñu ngi koy jooytu ñoom ñoom am nañ leen ci metti parce que nit mënul rey sa doom sosal sa doom tiiñal sa doom taqal sa doom ci place bu mu toogoon toog fa ba léegi loolu ku ku ko naqarluwul rek rayu ñu sa doom ku ko naqarluwul rek ñooñu fenaluñu woon sa doom loolu nag man maa ciy jot jomaay du ci jot sonko du ci jot man maa ciy jot ndax sénégalais yaakaar gi ñu am ci man di ñëw di jooy famille victime yëpp a ngi jooy te noppeeguñu amaguñ justice ba pare ñi tooñoon seen doom yi reylu seen doom yi ñi ngi dox seeni soxla amuñu lu leen neex loi d'amnistie bi loolu beneen affaire la mënaguñ ci wax beneen affaire la parce que il faut ngeen xam ne ci loi d'amnistie bii loi d'amnistie bi ñu tëgg waxoon naa leen ko avant ñu koo tëgg loi d'amnistie bi nag dafam ci lu mu toog loolu moo tax déggoo ci man bugguma jiitu paaka ci mbartal ndem xam naa ci lu bari nag mais bugguma jiitu paaka ci mbartal ñoom njiit yi waxuñu ci waxuma ci en tout cas loi d'amnistie moo leen fi bàyyi ñoom man moo ma libéré moo libéré Juan Branco moo libéré ñeneen ak ñeneen loi d'amnistie boobu moo tax tey Ousmane Sonko doon premier ministre loi d'amnistie boobu moom moo tax Diomaye fay doon président te loi d'amnistie boobu dafa am lu mu lalu boo xoolee même si ñuy njiit waxuñu ci loi d'amnistie bi déglu leen bu baax ñi fi ñëw bees sax waxuñu ne ay eh, dañuy approché loi d'amnistie waxuñu ko kenn te damay ragal problème am bu ëllëgee ngeen taxaw di ñu di ñu di ñu accéléré di ñu agressé ak yooyu ay loi d'amnistie attention attention. am na luñ leen mën a wax am na luñ leen mënta wax dama ne am na loo xam ne bu ci njee di waxul man du man maa ciy jiitu di leen ci wax parce que man dama bokk ak ñoom ànd ak ñoom ci combat bi nay leer attention attention ci côté boobu bugguma cee dugg bugguma cee dund bugguma cee dugg en tout cas xam naa ni daal comme ni ma ko président Diomaye Faye waxee woon loi d'amnistie bu ko libéré moom libéré Ousmane Sonko ba tey ñu kii doon président kii doon premier ministre même loi d'amnistie dam moo ma libéré même loi d'amnistie boobu moo libéré Juan Branco ba tey mu mun a dugg ci dëkk boobu te kenn téewu ko ndax six mois derrière munu fa woon dugg kooku loi d'amnistie moo ko fa dugal moo protégé ñun ñëpp donc loi d'amnistie boobu noonu man du ma assuré kenn danañ ko abrogé duñ ko abrogé li seen njiit di wax leer na nee na ñi sàcc dinañ goxi waxul ñu ay ñu rey nit ak ñu tiir ay nit ak ay ñoon non non suñu njiit yi laaluñu loi d'amnistie bi bu ñu wax ba léegi di communiquer déggu leen fu ñu waxee loi d'amnistie bi dañ ne ñi ñu gaañ ñi ñu gaañ dinañ leen joxi ndàmpaay ñi ñu rey dañ leen mais loi d'amnistie bi amul fu suñuy njiit wax dinañ ko abrogé dinañ topp ñu rey nit yi déggu leen ko fenn musu leen dégg tamit seen discours loolu nekk ci donc loolu lu mu lal lu mu ëmb dafa rëy mënuñu ci nag dugg mënuñu ci développé nay leer je parle pas de loi d'amnistie moo ko de candidat bu leen bul jaxase samay wax waruma tax tontu benn nit ñaari nit parce que bu may développé boo dul déglu parce que école boo gis classe boo gis na am ni laar prof bi di wax A moom muy wax Z man maa ngi wax libération kële di ma wax ay waxu candidat buñ nekkee ci kaso bi la nekk la nekk candidat donc man waxuma waxu candidat classe moom nu mu xat xat xat dina am ni laa nu mu xat xat dina am Cissé boo joxe dina am hors Cissé munoo joxe Cissé te du am ku am zéro wala deux ak nu professeur bi aay am déontologie am am am am am euh, stratégie ni waxtaan sax du teel dina am nilaar bu génn ko nilaar day arrière loo classe parce que professeur bi day développé développé développé développé ba mu sori benn nilaar bu yëkkati loxoom rek hors sujet prof bi bugg a bàyyi classe bu doon déglu topp nilaar ba pour mun a am lu mu def ci bopp nilaar bi lo nilaar dafa métti de nilaar ci classe may wax waxu libération amnistie mbokk waa ji mi may wax ay candidat yàlla nañu yàlla musal nilaar ci yàlla nañu yàlla musal ay nilaar ci classe yàlla nañu ci yàlla musal donc les gars combat bi dafa sori te dafa metti combat bi dafa sori dafa metti léegi nag lépp stratégie la gouvernement bi bu ñu tollee ci ab solution dinaa wax bu ñu toll ci benn solution du ma jiitu paak ci mbar loolu day leer waxuñu dañuy topp ñu ñu rey ñu topp ñu reyaate loolu déggoo ko fenn. dañuy topp ñu sàcc dinañ ko goqi ñi sàcc dinañ ko goqi ñi sàcc alalu askan dinañ ko goqi waxuñu la ba léegi ñu rey nit yi dinañ leen topp jàpp leen déggoo ko ci benn discours du président du usmaan Sonko nay leer donc foofu am na leneen lu fa nekk loo xam ne mënuma ci dugg ndem comprendre naa lu bari léegi lool sax du sama combat du sama débat sax déjà bàyyi ma génn foofu man sama projet laay protéger bàyyil ma génn foofu ki nga xam ni moom mooy Assane Fall moo ma tax a jóg man moom bu ma màttee du ma bàyyi tant que libéré wuñ Assane du ma bàyyi xam ngeen man noonu laa mel ci xeex léegi-léegi woote naa di côté de dik ak ñoom Cheikh Baara Ndiaye et cetera et cetera ñi fa boobu ba léegi mais xam naa léegi mu génn normalement nii nii boo deful ndànk sax dans quelques minutes wala quelques quelques heures Cheikh Baara Ndiaye dana génn woote naa foofu dana génn ci jàmm dana dox ay soxlaam boo leen foogee ne mun ngeen ñoo traqué nii napp ñu noppiloo ñu ci ay plainte ak yi nangam da ngeen di nax seen bopp loolu munul nekk te wax naa ko gars yi nee naa leen mënuñu nekk opposition di xeex di taxawaalu ci cour des tribunaux yi bëgg a gi bu gi bëgg waat taxawaaluwaat ci cour des tribunaux yi sàcc mënul porter plainte victime am mënoo sàcc nit ba pare dem di ko porter plainte mu ne la sàccee yi nga dem porter ko plainte sàcc du po du du dama ne un du porter plainte un victime nay leer fii kenn duñ fi te kenn tant ñun ñu ngi fi man maa ko assuré dama ne duñ fi tëj benn patriote laa la wax wax sa taat dina tàng trop benn patriote lañ fi dul tëj benn patriote lañ fi du Cheikh Bara Ndiaye du Assane Fall kenn lañ fi dul tëj nañ fi tëj kenn te xool s'ils veulent la guerre ils l'auront et je benn patriote lañ fi dul tëj kuy xaar ñu tëj fi patriote di nga di nga duul diwoo man maa la loolu et asan Fall sera libéré incha allah très très très prochainement léegi sàcc suñu alal ñu leen di porte plainte di ngeen naan da ngeen ñu porter leen ngeen retourné dañu porter plainte léegi justice bi léegi ay ñoom Mame Mbaye ñoo ñooy dem di porter plainte ah ay Thérèse Faye ñoo ñu porter plainte kan la sañu nday yi liggéeyu ba sàcc yi nga xam ñoo sàcc sañu alal dañu porter plainte c'est impossible loolu mënul nekk loolu mënul nekk donc pour l'instant tey jii ci lool la ñuy wax sama gars yi <laughs> am na ñoo xam ne ñu ngi may bëgg a indil fële débat amnistie bi loolu beneen affaire la beneen affaire la beneen affaire la beneen affaire la da leen jàppagum li leen jox gum rek beneen affaire la sama gars yi état dafa état dafa doy waar tam état dafa doy waar état dafa garaaw beneen affaire la état daal sa du ay naaxa sa xandak daal ah, beneen affaire la daal loolu après après loolu beneen débat la nee naa leen kenn du ma anticiper ci débat boobu du ma du ma ci jiitu autorité yi du ma ci jiitu autorité yi de loolu dama leen ciy bàyyi ñu développé ko ma ñëw buñ ko développé wul bouche bee ma noppi mais daal du ma ci avancé loolu dama leen koy wax du ma ci avancer du maa ci avancé daal voilà wax naa ko tamit les autorités de la république ne ñi leen di défendre défendruñ seen papa yi défendruñ seen yaay bës bu buñ nekkee victime ngeen leen di seetaan ba gars yi mun leen di paqueté ñoom ñi nga xam ne ñoo sàcc alalu réew mi di leen tëj ci kasoy di dina leen bàyyi ñuy saaga seen ndey te duñ duñ leen duñ leen duñ leen xeexal ah. ñi leen di xeexal nii gars yi dañ leen di saaga ndey yéen loolu moo tax ñu leen di xeexal bu fekkee ni ñoom finalement yéen ñoom saagawuñ seen ndey saagawuñ seen baay yéen la ñuy saaga seen ndey Ousmane Sonko la gars yi di ñëw di saaga ay ndey ak ay baay nit yi taxaw di ko xeexal senegale yii maanaam taxaw di ko xeexal bay saagante ay baajaxateeg yooyu bu ñu demee ba ñooñu doon a léegi finalement ku lay saaga ndey nit ñëw di reyante ngir yow mënoo koo défendre mënoo koo taxawu nga bu ko yóbbu à l'abattoir da lay seetaan nag bés bu ñoom seetaanee xam nga gars yi waa APR ñu ngi saaga ndey ay ñoom Ousmane Sonko ak Diomaye wax ju ñaaw ju ne xam lan moo tax ñu ragal booy nekk ci internet bi di saaganteeg ñoom ay ndey di ci xëpp kaan gatsa gatsa googu loolu moo tax ñu ragal yenn yi ragaluñu ñu yi de parce que ñoom dañ leen di fay ñuy saaga ndey te waa Ousmane Sonko yi kenn fayu leen dañuy saaganteeg ñoom pour reculer loo leen réew mi mooy doxee noonu bés bu leen commencé di seetaan ñoom ñuy tànc seen nit di leen tëj bu ëllëgee nit dina fi taxaw saaga ndey Sonko ba naaw ba jaar ci dëgg bi fu xasaw te kenn du ko défendre parce que da boo ko fayoo ñu jàpp la boo fayoo ñu tëjlu ñooñu nag défendruñ seen papa défendruñ seen yaay nit bu la bëggee dala la koy jaral man tey le petit fans boo xam ni day rayante ngir man di xeex ngir man sawaay duñ ko duñ ko indil buñ ko indiloon problème man damay taxaw am naa fi fans bu nit wax ci man mu jam ko paaka ñu yanu ko yóbbu pourtant daa jam booy bi paaka waa këram bu ñu ko wooyee bu ma wooyee guddi googu guddi googu nalawu ma damay yeewu nekk ci police bi nekk ci police bi toute une journée guddi gi ba bëccëg parce que te pourtant xaw ma woon waa jooju noonu mais dama ko taxawu ci police bi parce que kooku saaga ma ndey bu ko neexoon bàyyi ko noonu dogoo dafa mujjee jël paaka mburu paaka mangoo bu doon tagg jam ko ko donc <laughs> nga am delloo ko le minimum nga delloo ko le minimum waa APR yi ñaaw nañ làmmiñ reew nañ mun nañ wax wax ju ñaaw salte nañ gars yi di fayantoog ñoom loolu moo tax donc ñooñu boo leen protégé wul doo leen tayle boo leen protégé wul doo leen tayle pour muy leer bu fekkee nag nit da nga koy dalay jaral mu jaral la yow te yow jaraloo ko dalay bàyyi wala mu seetaan la rek c'est tout leer na nañ Assane Fall moomu saagawuñ papaam saagawuñ papaam saagawuñ yaayam bu taxawee foofu ci tribunal bi ku ñu saaga la Ousmane Sonko bi mu gëm fonk ko la ñu saaga mu am lu ko metti Ousmane Sonko bu ñu bu mu gëm fonk ko mu ne moo ko gënal baayam moom la ñu saaga mu yëg ci boppam donc kooku défendrul baayam défendrul yaayam ndax bu ko neexoon ne Ousmane du baayam Ousmane du yaayam bu ñu saaga ba suba Ousmane yoonam du ci nekk. donc day xeex ndaxte nit bu mu bëgg lañ saaga donc loolu loolu lëm strict minimum nga xam ne kii dafa suicide individuel la def dafa jaayante ngir son leader. loolu waa Pastef war nañ mun a mun ko protéger te day génn incha allah voilà day génn incha allah bu soobee yàlla dina génn dina génn te dina dox ay soxlaam incha allah voilà chambre 41 la nekkoon mooy chambre bu gën a tàng ci rëbës un mois Alassane Fall taxaw na mu tàng métti ci moom loolu un mois yoo xam ne tëddu ko mu nekk ci biir kaso bi taxaw amul place ñaata yoon lañ ko yóbbu corvée ñaata yoon lañ ko yóbbu séeréer laajte leen ko ku saaga Sonko ci kaso bi Alassane Fall xeex ak yow Alassane Fall daj na lu mburu dajul ci fuur ndax xeexal Ousmane Sonko ci kaso bi xam nga ni koo xam ne ci kaso lañ koy tëj tëjaat ko ci biiri kaso kaso ci biir kaso dem na séeréer dem leen laajte ñaata yoon la dem séeréer ndax ay nit yu doon manqué respect Ousmane Sonko ci kaso bi mu jaayante ko fa ñaata yoon te foofu waroo saaga mu nit bu saaga Ousmane Sonko mu saaga ci kaso ba la ko doon na ko fa def ku saaga Ousmane Sonko mu dal sa kaw ñëpp xam ko ci kaso bi naan ko yow Sonko moo la gën a sa ndey Sonko moo gën a sa baay mu def onze mois kaso la jëlee feebar to toxoro toxoro xam ngeen luy toxoro feebaru kaso la Ousmane Sonko ko lu ne donc da ngeen di soutenir seeni nit am nu ma leen ko waxee da ngeen di soutenir seeni nit da ngeen di taxawu seeni nit dafa am feebar ci awra loolu mooy toxoro feebaru kaso la lu mu dajul ci kaso bi amul ndax Ousmane Sonko koo xam ne boo saagaan Ousmane ko Sonko ci kaso bi day xeex ak yow te saaga sax dañ koy tere ci gi boo saagaa Ousmane Sonko da xeex na ku fa musa saaga Ousmane Sonko moom jaayante na ak luñ ko fa jàpp luñ ko fa dóor luñ ko lu ne def nañ ko fa ndax Ousmane Sonko mu jaral ko ko Donc il faut soutenir vos combattants. il faut soutenir vos combattants. Encore une fois. Voilà. kon di leen sant di leen gërëm di leen wax ni comme nu ma koy waxee bëri na ay page tamit ay page yu nekk ci kii bi Mollah Morgun Mollah Morgun wax naa ba tas moomuma page yooyu xaw ma ñu ko créé xaw ma ñu ko bind moomuma page yooyu page bi ngeen gis nii ma ci live moom la moom lu ngeen gis ci page bi man la lu ngeen gis ci page bi man la beneen page ñu may gis Mollah Morgun samay photo yooyu ay faux page lañ ay faux compte lañ xaw ma sax ñu fa nekk combat bi nag yaatu na yaatu yaatu yaatu boo xam ni Mollah Morgun dafa international ku nekk day jël maa ngi mel ni benn Pippen wala benn Jordan wala benn Rodman nu américains yi am peut-être fierté boobu ñu américains yi am di partager partout noonu lañ mel ci man xaw ma sax ñan la page yooyu ñu ña fay publier moomu ma ko xaw ma ñan la xaw ma ñu ko bokk ma ci du ma ko sax nay leer ñii def samay photo ñii bind samay tur ñii nangama nag moomu ma ci tous rien nada nay leer lii nii laa moom bii bii ngeen di gis nii laa moom bii laay waxee beneen boo leen dem moomu ma ko waxeewu ma fa loolu leer na jeex na bu ma kenn indilaat ay wax yi leneen wax naa ci ba tas Sénégal nag noonu la mel boo waxee lu am importance duñ ko jël boo combatee pour eh, injustice bi dindi ko fi duñ ko jël dañuy xool benn affaire jël ko bu ko buukale def ko foowukaay fekk loolu loolu benn stratégie la bu ngay romb jàll yow xeexal Alassane Fall bay bëgg a dee sit yi ñàkk ndayam fayda amuñu lenn la ñuy partagé Mollah Morgun ñëw man maa tee sama bopp kenn ndewul newul Sénégal ndayam déglu kenn doxul nday Sénégal ku mu a bu ma kenn àll dama ne kenn amul nday bu bu jur doom buy dox Sénégal bu mën a téye loolu na na leen leer barki alxuraan du juge du procureur du benn doomu nday aadama buy dox Sénégal boo xam ne bu ma jógee pare nii ba ba lu mu noppi li may def samay tournée war fa dugg koo xam ne mën na ma amul kenn amu ko fa kenn yàlla may ko fa nit amul na na leen man loolu intéressé wu ma Abdou Karim Diop daa daa suufu ci man dafa oyof ci man sax dafa oyof ci man oyof yow mun ngaa imaginer benn Mollah Morgun ñëw gars yi teg seen am na si teg seen lépp ñu jàpp Mollah Morgun eh, est-ce que yéen a ngi imaginer loolu. xanaa ku ma jàpp bu pare day dee ma am samay këyit am sama lépp mën a dem ñëw kon dinaa saaga sa nday doon sa ennemi international di la combat di xeex ci ah saayar ak baatin dootoo amati jàmm yow. <laughs> non non non non dama ne bu ma takkoon mun a samay loxo jox ko Abdou Karim Diop ñi mu ma laal. barki Seydina Mohamed day daw billaahi wallaahi wa bu ma takkoon samay loxo jox ko eh, eh, eh, ma am jàllo day daw man sénégalais yi nga xam ne ñoo ma xamul nii nekk internet bi ñoo ma yàpp ñu xamul nii xamuñu sama capacité ak sama possibilité ak sama capacité de nuire ak force bu ma bu ma may ñoo ma mun a yàpp mooy golo nii nekk ci internet man je suis international international damay yëngal nday ay république yëngal nday ay république laay def man am doole am doole am pouvoir yëpp la ma yàlla may je parle avec tout le monde ba ci république bi bu ma jëloon sama téléphone léegi woo biir palais de la république ñu ma fa barke alxuraanul karim bu ma jëloon sama téléphone bi woo biir palais de la république kuy décroché palais la may décroché man ku ma ku ma yab danga maa xamul ku ma yab rek danga ma xamul yow ku may benn bennal rek danga ma danga ma sori ñi war a respecté dañ ma respecté dëkk bi ñi ñi ngeen nawloo jox leen cër ku ma ci gis day tóot ku ma ci gis da koy lam ba mu ron dëkk bi laa lool ñi ngeen ci ngant ngant logi ku ma ci gis ni la def càcc mun naa xeex sawar naa mun naa dem fu ma neex di la dóori bomb di la largué da da da ay komba lépp mu ñeme naa kamikaasu sa waay ñàkk maa song moo gën a yomb ci yow nga song ma laaj ma ña songoon ñëpp a daanu dama ne ñàkk maa song moo gën fuuf nga song ma boo ma songee sa dee xaj na ci bu ma doonee sa noonu ni ma fi éliminé ki nga xam ne mooy Macky Sall xeex ba ba mu naaw ba mu tëb ma xeex nday ki nga xam ne mooy Amadou Ba jaayante ko dugg nday jibbi ay disitam futti nday sri stringu ndayam ba futti teg yàqal lépp Amadou Ba bokk naa ci ñu ko gën a yàqal à la dernière minute ma damm ay tànkam noonu laa amee force ak pouvoir di dugg fépp man kenn yabu ma kenn yabu kuy xaru rek moo may songu kuy xaru rek moo may songu yor naa samay laaf di naaw fu ma neex dem xanaa boo ma tëjee même bu dee dama ñëw nga tëj ma sax <laughs> mais yàqu nga yow yow moom yàqu nga parce que danaa génn jëlaat samay këyit demaat foofu di tegal sanday nday di tegal sa di tegal sa ba sanday nday di jooy di tegal sa di sulli di teg di <laughs> boo ko defee dootoo ko dolli de boo ko defee dootoo ko dolli moo tax bu kenn am looy jaxle man Mollah Morgun mii dinaa ñëw Sénégal dëkk bi dina fees barki alxuraan dina fees dell dinañ ma recevoir nañ ma accueillir comme un héros national dinaa fa génn wër Dakaaru Njaay Jal Jóob ba mu mat sëkk ñi ma war a seeti dinaa leen seeti dinaa fa jaar jël oto dem Kaolack waa Kaolack dinañ taxaw ci buntu dëkk bi di ma recevoir di tëb di jubile di yuuxu ma toog fa gis njaboot gi def lépp lu ma war a def programme bi nag duñ leen wax lépp lii daal jàppale dama ne dinaa ñëw senegal aéroport na fees tepp dinañ cakas bin bin ba mu saf sàpp dugg ci oto yi wër dëkk bi ba mu saf saf fu ñu yëkkati loxo Mollah Morgun kenn du ne kii nañ nangam taan foo ko déggee dëkk bi ñooy daw Mollah Mollah loxo bi naan nii gars yi di ñu Mollah bi di riir ci ngeen doo ko comprendre qui gi di ci dëkk bi yëpp ñu dem gis ñu war a gis nuyu ñu war a nuyu bëggee ñu war a bëggee <laughs> foofu rek la yem nag lu ci bari nag soxlawul ñu koy wax en xam naa ni senegal dinañ ci ñëw jàmm ci ñëw bu nganta nganta ngant nga xam ni ponkal moo dugg ci réew mi comme un héros dëkk bi danañ génn dinañ jibile buntu kër yi dana fees dell fu ñu romb dëkk bi yëpp danañ màbb taxaw dinañ wër yëpp ale bi fu ñu war a dem nañ fa dem danañ gis ñi ñu war a gis gisi ñoo xam jot nañ wax ak ñoom ba pare dinañ toog ak ay autorité de la république wax ak ñoom waxtaan ak ñoom teg lu ñuy def yëpp danañ ko def incha allah bés bu ñu war a jógaat dinañ jógaat loolu kese moo am fii ku am bët moom ngay gis ku am saayar moom ngay gis ku am baatil moom ngay gis amul leneen sama dund kaso amul ci Sénégal kaso amu ci sama dund may dox nii nit songu yàpp amul bu may dund ba léegi voilà donc nag loolu rek laa fi gis te loolu rek am incha allah dinañ ñëw ndakaaru dinañ dem Saalum dinañ cakas bin bin bu saf sap réew mi dinañ bëgg dinañ kontaan te dinañ liggéeyal réew mi aw leneen amu fi leneen leneen gisuma ko fi dara jàmm ak salaam gu mat sëkk réception bu extraordinaire réew mi danañ gën càkkas bin bin bi day dal par force aéroport dara mënu ko téye kooku nag nay leer léegi nag justice pour Alassane Fall nous réclamons immédiatement et sans condition la libération purement et simplement de Alassane Fall. Et le combat continue. Et we out.